bu ñu jàppee ne Ousmane Sonko moom nërmeel nañ ko bokkatu rek yàlla ñëwaat ay moo tax dëgg rek ay dëgg ñu gis ne ne tey biñ ne dafa am euh, maanaam déposé wul jotuñu euh, attestation wu euh, kii bi bu di CDE bu CDE léegi ñu jàpp ne ci biir loolu léegi nag dafa am benn waay joo xam ne ne ñu ne ci 2018 muy instant Sankhare yàlla na ko yàlla yërëm ñu ne dafa le 15 avril 2018 dafa demoon di déposer ji xaalisam temps yooyu maanaam euh, kii amul euh, nu mu tuddati CDC euh, amul mais temps yooyu trésor lañ ko doon kii mais jour bi muy dem munu fa déposé parce que dafa tombé ak weekend mais le lundi bi mu xëyee demee fële ne conseil constitutionnel dañ ko ko nangul parce que dinañ xam ne du ci coobareem waa léegi coobareem boobu kooku ñu xam ne ne du coobareem kii nag moom. coobare boobu nag tey jii ni moom la conseil constitutionnel war a wax nag man na jàpp naa ne xanaa nit du nangul lii démb tey nga bañal ko nit sama gis-gis la de sunu gis-gis la sunu gëm-gëm la nit loo bañal diw bu ko nangal kii que ce fii ba àdduna di tukki bu dee yoon rek ay yoon mais mënoo nangul kii lii tey suba nga bëgg ko bañal kële ah dañ leen di laaj de yéen a nanguloon conseil constitutionnel yéen a nanguloon instant Sankharé ne maanaam bi mu waree dem déposé ji mënutoon déposé parce que tombé naag bi kenn tombé naag lu mu mënti doon kon moom indiwul fa reçu euh, attestation buy wane ne déposé na mais nanguloon ngeen ko waa léegi Ousmane Sonko nag moom dafa déposé bañ jox ko reçu xanaa ki ñu jox reçu peut-être attestation bee des kooku xanaa kii indi na reçu book kee indi tuwo doon reçu. kee dafa ne dañoo dañoo tëj maanaam liggéey eh, liggéeyuñu wala fekkul na fekk na ne ñu tëj maanaam weekend la woon te indiwul reçu de moom nanguloon nañ ko waaye léegi ki indi reçu au moins wane ne joxe na xaalis joxe na numéro compte lépp te compte ba defe naa ne xaalis ang ca kon léegi kooku nag xanaa mënoo leen ko bañal ah logique pour logique moo tax ma ne yàllaa mee di jë te léegi ñu gis na ne fii ñu jëm nii ku waxal yàlla ñun ñëpp dëkk bi rek moo ñu yitteel amuñ feneen fu ëpp dëkk bi mooy lépp lu waay def ah loo atte di nga ko attewaat lu gën a neex ci àdduna mooy boo tëddee nelaw te billaahi wallaahi am na ñoo xam ne boo defee lu nga war te def kenn du la wax dara de mais boo tëddee doo nelaw te lu gën a neex ci àdduna lu raw na la amut yoral alal bu dul jeex yoral soxna yu dul jeex yoral oto bu dul jeex yoral kër yu dul jeex boo tëddee nelaw rek nga bëgg. te billaahi lu fi waaye àttee te dëgguwul billaahi boo tëddee noo nelaw sa conscience du nelaw te ñàkk nelaw lu ko gën a bon ci àdduna amut tey lu tax yàlla sàkk guddi sàkk bëccëg pour nelaw a tax li ngay def ci bëccëg yi bu guddi jotee nga nelaw sa esprit nelaw te am na loo xam ne boo ko deful billaahi doo nelaw te ñàkk nelaw fii ba ba ngay jógee ci àdduna dara jaru ko te kenn xamul ñaataat ngay dundaat moo tax lépp lu waaye di def na ko def ci dëgg ko am dëgg jox ko dëgg ku amul dëgg bu ko jox dëgg te loolu mooy dëgg te buñ ne sage mooy ku am sagesse sama maam bi ma yar Wally Michel caaka bi ci caaka euh, bi ma yar lim doon wax bu doon dem ñuy génn mu ne jibi ma ne ko naan mu ne soit sage affaire bi doon ma def doon ma travailler ma ne sage sage chaque jour sage mooy lan ndeke sage mooy taxawaay boo xam ne bu jub la yem fi nga war a yem def li nga war a def bañ a indi benn jafe-jafe loolu mooy sage léegi nag ku dund 60 ans wala 70 ans wala 65 ans ñu ne léegi nag yow yaay sage yu lépp maanaam lépp lu war a defaru yaa ko war a defar lépp lu war a yàqu warul jaaree si sa loxo te li gën a jaaxale nit ñi mooy ci li ñu jëm bëri nag ay recours gis nañ ko. benn ci euh, nu mu tuddati <coughs> euh, nu mu tuddati euh, le ministre Alassane Sall Alassane Sall waay dafa bind benn recours jox ko ci Karim Wade ñun am man de aw ma Karim benn affaire baayam ñëpp taxawu nañ ko gis nañ lim fi taxaw kenn werantewul ne sénégalais la kenn werantewu ko baayam kenn werantewul sénégalais la te bëgg na Sénégal te jëmmal na Sénégal am na lu mu def Sénégal. am na nag luñ ko nangul am na luñ ko nangul ci doxalinam loolu moom kenn du ko wéet mais au moins sénégalais te xareel na senegal mais moom it jàpp nañ ne sénégalais la ñu ne dugal nañ recours ci moom Thierno Alassane Sall moo ko dugal sénégalais yi ñu bëri nag am na ci ñu bëri dañ ne dañu mere euh, Thierno Alassane Sall ñu ne dafa soxor mais mbir mi tamit des fois du côté soxor mais luy dëgg nañ ko wax dañ ne yoon moo tere. bépp seen ku dul sénégalais jiite Sénégal léegi nag ku am beneen nationalité comme Karim Wade loolu du ci guluguyam